waaw dama wax ne président de la li mu wax def ko tibbee ci déclaration wu imam ratib te imam ratib li mu wax yëpp daf ko tibbee ci alxuraan wax diggante jur ak njabootam wax diggante njaboot ak wayjur jublu ci wax ne xale boo xam ne dañ ko yar ci ay charte islam yar ko nuñ ko war a yare ci dimbalante ci teey ci jàmm su màggee ci yooyu condition dëkk bu mu nekk jàmm moo fay am ndax diggante yi mu ngi tàmbalee ci ci biir kër yi law ba ci pénc yi ñëw ci quartier yi ñëw ci ville yi kon nag yooyu yëpp bu dajee li nga xam ne moom la ñu bëgg mooy que kenn ku nekk jàpp ne lii imaam wax président de la République feelu ko ci moom la ñu mën a dopp dëkk bi am jàmm ndax boo xoolee tey jii xale yi ni ngi ni ñuy nekk ci mbedd mel ni eh, amuñu kilifa ñu ci bari loolu lay nuru parce que boo amee kilifa bu la tere da ngay bàyyi bu la sant da ngay def kon nag imaam loolu doon fàttali daal moo tax yàlla na yàlla yooyu yëpp. Euh, boo xoolee si xutba bi imaam lu mu si wax bari na lool ñaax na ndaw yi wax na leen tamit ñu fonk seen waajur yi ndax boo xoolee si biir wax bi da ngay gis ne mu ngi bëgg a xamal ñun ñi ne àdduna du nekkul na lépp loo bëgg rek da nga koy forcer. waaye lépp loo ci bëgg rek daa am foo koy jaarale su ko defee nag li fi nga li nga bëgg a jaarale fi nga koy jaarale mooy foog yow ma xam sa bopp soo xamee sa bopp wan ne na man am naa ay kilifa soo amee ay kilifa dalay jommaloo nga def lu bari si biir xutba bi tamit da ngay dégg muy ñaax ñi ñi si wàllu julli parce que dañuy wax ne inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar dañuy julli boo koy def mënoo def lu bon mënoo def loo xamante ne dafa ñaaw bés boo defee lu ñaaw wala ngay def lu ñaaw xoolaatal say julli moo tax boo xoolee moom xutba bi yëpp daf ko basé si julli ne leen jullit fekk moo ngi julli di def safaan ba na xoolaat ay julleem su ko defee nag mu nekk discours bu am solo boo xamante ne nit ñi war nañ ko déglu ndax jamono ji dañuy déglu dara yëngal seen bopp nga defee ne li nga wax dégg nañ ko fekk des na su defee nag di ñaan yàlla yàlla dimbali ñu lépp loo xamante ne kilifa yi wax nañ ñu ko ñu mën ko dégg mën ko jëfe beneen bi mooy wàllu àdduna li si li ko lu mu lu mu làmb dafa bari nit ku nekk nag am na gëm-gëm am na lu mu bëgg waaye àdduna pour mu dox foog ñu organiser ko lii organiser àdduna nag xel la xel mooy organiser àdduna parce que bu fekkante ne sa bëgg bëgga da ko topp te xalaatoo amaan na yow li nga bëgg doo ko jot wala boo koy jot amin bi day ñaaw su ko defee nag lépp lu ñu bëgg si xel organiser ko di ñaan yàlla nag julli bi ñu julli yàlla ñu ko yàlla nangul yàlla nangul ñu sunu jaamu yàlla yëpp di ñaan yàlla yéen tamit si li nga nekk yàlla leen si yàlla jàppale wasalaamaaleykum a rahmatullah